merci encore une fois de nous rester fidèles mbett lay doon saa su nekk ñu jàkkaarloo ak yéen mbokk yi salaamaaleykum 12 minutes chrono dellu si waat na tey ñu am gan euh, Ansoumana Dione xam ngeen ne bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon dagani wala ñoom ñoo amoon yéene ngir dagani kaddu askan wi euh, moom tamit nekk njiitalu association euh, di malade mentaux ci biir réew bu Sénégal moom la ñuy dalal tey suñu plateau 12 minutes chrono mbokk yi wala Ansoumana mbett la encore une fois ñu dalal la tey. Al ah, Amin ci 12 minutes chrono fii ci Leral TV. d'accord 12 minutes chrono en ce moment koy tàmbale ak actualité bi nga xamante moom mooy xew ci réew bu Sénégal jamono jëlee gaal boo xamante ne suuxati na ñu gis nit ñoo xamante ñàkkati nañu seen i bakkan ndaw eh, yi nga xamante ñoom ñooy dem Barça wala Barsaq la raison ou les raisons selon vous lan la ñu mën a def ngir daal di dakkal su phénomène l'hémorragie de l'immigration irrégulière. xam naa du fi xëj mais dañ ko tënk réew bu ay doomam gisee ne. ay kilifaam ña ngay xëccoo ña ngay reyante ci leneen lu dul seen ay soxla ci seen ay jafe-jafe dina jur lu mel nii man dama waxoon depuis daaw waxoon ne nañu jël budget bu 2024 ñu jaglal ko lépp ñu jaglal ko contre l'immigration clandestine tey bu ñu toogee jamono gi réew mi nekk ci benn situation boo xam ni kenn xamut lan mooy solution jaaxle day daal di am kon bu fekkee ne euh, euh, coïncidence am na ñu gisate ay gaal yuy génn ay xale ci faatu dama def ne jot na lépp lu ñu doon def sax tey jii ñu tegandi te jublu ci suñu ay ndaw balaa nga naan naam ne fa bërëm kër buy daw njabootam moo tax ñun suñ njaboot ñu ngi faatu ci géej gi suñ njaboot ñu ngi sànku ndaxte ñoo ngi am yéene bëgg lu baax. lenn aussi nag am na mooy xale yi tey dañu yàkkamti yàkkamti mbir mi du pauvreté mbir mi yàkkamti la bëgg am tey tey tey te loolu mënul nekk. est-ce que amu ci boo xamante ne le gouvernement wala les le régime en tant que defu ñu ay jéego pour ñoom ñu am espoir ngir mën a toog ci li nga xam moom mooy réew bu Sénégal. loolu mooy li ma sànq c'est le pouvoir et l'opposition c'est toute la société sénégalaise. qui est responsable de cette situation. Donc les responsabilités sont Nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables. Et c'est le moment, encore une fois, de nous arrêter pour faire face à cette hémorragie, à cette vague boo xam ni du ay caaxaan moo koy téye xam nga il nous faudra impérativement aller vers euh, euh, l'assainissement des cerveaux. Le Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine a été agressé sur plusieurs euh, euh, euh, de, plusieurs manières donc tey jii dafay jaadu xel yi ñu raxasaat ko xam nga euh, internet les médias les séries télévisées dañuy jouer ci lu bari di won nit ñi loo xam ne nekkul ba nit ñi foog na dëgg la léegi nag tey lan mooy am am lan mooy tekki mooy boo amul kër gu rafet boo dawul oto bu rafet bu fekkee ne euh, yoroo ay soxna yu bari loolu nag il va falloir ko suñ société bi ñu xoolaat ko xool nag lañ koy tëggaatee ba ñu xam ne nit du bàyyi ma nit du pour nga tekki il faut que nga génn pour nga tekki volonté la euh, patience la détermination la mën nga di jaay gerte caaf pendant vingt ans nga am ci loo xam ni ki nekk Europe en tout cas du ko am l'avenir c'est l'Afrique l'Europe n'est pas la solution la pirogue n'est pas la solution il va falloir que nit ñi ñu xam ne ñun ñëpp tey jii que ce soit la presse les psychologues les anthropologues les psychologues les sociologues ñun ñëpp les religieux ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaan gis nga ni. jëm ci assises liées sur l'immigration irrégulière. noonu la demee nag il nous faut des assises sur l'immigration irrégulière dëgg la tukki ci nit la bokk mais lii ma gis ni depuis des années nekkatul tukki xaru la c'est une sorte de suicide collectif des jeunes qui bravent la mer surtout en cette période de froid ñu dugg ci géej gi sachant que ils peuvent mourir xam nañ ko de. mais ñoom ñu ngi gis dee boobu ngay gis est que ñoom gisuñu le suc en fait la réussite l'aboutissement bi nga xamante moom la ñuy wóoti exactement. xam nga il se considère comme déjà mort. cest ku dee cest à euh, ñoom dañu considérer ne ku tekkiwul faatu nga kon boo euh, boo songee dee boo dekkee mooy mucc nga. Hmm. c'est-à-dire euh, c'est comme qui dirait c'est des morts. qui traversent les océans. Une fois arrivés, ils sont ressuscités. Donc le mort n'a pas peur de mourir. C'est pourquoi eux, ils disent Barça ou Barsakh. Mais en réalité, pour nous, acteurs de santé mentale, c'est une autre forme de folie. yàgg nañ ko wax euh, mbëkk bi euh, cette immigration clandestine c'est une autre forme de folie et il va falloir que ensemble ñu ut ci ay solution beneen mbir la ci li nga xam ne moo jëm ci actualité jamono ji ci biir réew bu Sénégal jot na tembe ngir ñu daal di wut ay solution loolu lu am solo la moom wax na ci lu jëm ci assises yoo xamante ne dañuy toog ñëpp waxtaan tout les tous les acteurs concernés ngir ñu mën a dakkal le phénomène lié à l'immigration irrégulière fàttali rek ne euh, le chiffre de nga xam ñoom ñoo dee ci gaal boobee nga xam ne daanaka nee na départ bi personnes en tout cas ñoom ñoo euh, ci li nga xam moom moo jëm ca diwaan bu ndargee daañu ko toppal tamit boobu lépp xibaar Ousmane Dione acteur politique bokkoon nga ci ñuy fas yéene woon dagani kaddu askan en tout cas au début du processus bokkoon nga ci ligne de départ bi. ligne bi gisuñu Ousmane Dione dialogue bi vous avez participé à ce dialogue. c'est ça. c'est quoi qu'est-ce qui a motivé cette participation de ce dialogue. man dama jàpp ne. man Ousmane Dione. ci kàttanu yàlla man maa war a wutu président Macky Sall. Sénégal oui même si woon ci euh, ba léegi bokkoo ci ñi nga xam ne man maay wuutu président Macky Sall sama gëm-gëm la xam nga ba ñu commencé ci parrainage bi avant ñuy déposer le 16 décembre la def point de presse man ne man damay demande à ce ñu annuler le processus. Bien parce que corruption faux et usage de faux daf ci nekk tey l'avenir m'a donné en tout cas raison hmm. ñu bëri ñu recalé leen am ñu jàll te ñu ci biir ñoo ñu jàll. am na suñu bari si ñoom ñoo xam ne waruñu woon euh, xam nga PDS daf ne am nañu corrompre ay juge loolu lañu ko vérifié. présumé présumé bu fekkente ne dañu ne salle bi am na un lion bu ci nekk am na un cobra bu ci nekk man balaa ma ci dugg dañuy vérifier d'abord ndax am na cobra wala am na lion oui ou non su amul jaan ma dugg su amul gaynde ma dugg mais du ma ne non damay dugg en su su fa newulee c'est pas grave donc tey ces accusations la dañ ko waroon a leeral d'abord ce conseil constitutionnel toute décision qu'elle va euh, euh prendra du am légitimité parce que dañ leen tuumaal dañ leen takkal waaye man fi fi may waxee mooy beaucoup de candidats ont acheté leur parrainage sur le terrain les gens. ça c'est non j'en ai vu. j'ai vu sur le terrain ay. candidats yu jënd seeni ay parrainage sur le terrain man on m'a demandé de la même chose ci la arrêté. d'accord mais jàll nañu si étape parrainage. Mm-hmm. à ce stade des faits. Mm-hmm. na jon gëm nga ne yow yaay wutu le président Macky Sall. oui donc vous avez cautionné à ce que ñu reprendre le processus électoral. xam nga man loolu laa njëkkoon demandé man maa ne woon nañu annuler aller vers un et reprendre tout le processus. en quoi faisant exactement lan la ñuy def justement xam nga tey euh, dialogue bi man ba ma ci demee c'est pour apporter mon opinion. vous l'avez fait. et je l'ai fait en toute responsabilité. d'accord il y avait deux commissions. Hmm. commission date et commission après 2 avril. bien muy commission politique ak commission euh, constitution. man dama bokk ci commission constitution parce que dama jàpp ne après le 2 avril c'est important mais ñi nekkoon ci commission. Euh, politique ils n'ont fekk de la politique parce que la ñu def man d'ailleurs euh, wax naa ko démb euh, re reprendre c'est-à-dire une réouverture partielle du processus conduirait à mon avis à catastrophe parce que su fekkee ne da nga ne 19 yi jàll da nga leen téye ñu ñu recalé woon ak ñi nga xam ne. ils se sont dit spoliés ñoo ñu ngay fexe ñu duggaat ci mbir mi dama jàpp ne loolu c'est de la folie loolu ña koy def ak ñuy dem ci gaal gi c'est la même chose soit on maintient les dix-neuf candidats ñu dem élection présidentielle man la boobaat duma ci bokk wala on reprend tout le processus parce que lépp yàqu na xam nga depuis que euh, euh, euh, depuis que Rose ñu gis ne elle de nationalité ñu génne ko ci vingt yi mu des dix mais ñeneen ne ci biir am na ñu ñu wax ne am nañu double nationalité am na si ñoo xam ne conseil constitutionnel bàyyi na leen te xam nañ ne war leen bàyyi tey aujourd'hui non non tout le monde est unanime cest à tout le monde est unanime d'accord euh, le conseil constitutionnel a commis des erreurs oui. maintenant s'il des erreurs une faute on la corrige Les gens veulent aller à des élections avec ces erreurs, avec ces fautes-là. À la date du 2 avril. Oui. Après le 2 avril. Oui. nga ne dafa am solo. am na solo trop. lan mooy solo bi. parce que président président Macky Sall nee na démissionné wul. yàlla may na ko mi ngi dund dañ koy ñaanal gudd fan. amiin yàlla may na ko mi ngi ànd xelam mi ngi ànd ak wér-gu-yaram. amul benn amul benn empêchement. kon foofu la constitution n'a rien euh, prévu dans ce cas de figure demul. délem jeex na léegi il fallait que nit ñi ñu waxtaan mais ci constitution bi d'après les d'après les juristes boo jëlee article 36 dañu ne président Macky Sall dëgg le le le président en exercice pas Macky Sall le président en exercice il reste au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur te loolu moo gën yenu maana et ñun. donc pour yow dafa war a des. ba keroog élection di am. mu jox man en c'est c'est cette idée que j'ai défendue oui. au dialogue d'accord loolu benn mbir la beneen mbir bi mooy dafa am ñu bëri ñoo xamante ne ñëwul woon ci dialogue bi mhm. nekk ci ay candidats retenus validés par le conseil constitutionnel est-ce que jàpp nga ne loolu aussi c'est de la folie de ne pas répondre à la main du président Macky xam nga à chaque fois qu'on appelle un intellectuel et qu'il refuse de répondre parce que uniquement dafa ragal ñu nax ko kon moom déjà xeeb na boppam man quand je à émission jëwu ma xam sax yenn question la ñu may posé parce que jàpp naa ne je dois pouvoir répondre à toutes les questions bu fekkee ne yow bu êtes candidat man Ansoumana Dione si j'étais candidat retenu par le conseil constitutionnel qu'est-ce que j'aurais fait damay wuy ji ñëw toog ñeneen ñëw ma ne mais ces gens là qu'est-ce qu'ils font dans la salle ils n'ont qu'à quitter la salle pour que ñun ñu mën a waxtaan loolu attitude la man nekk beneen bi si euh, tel n'est pas le cas ñu défendre suñu ay positions wax ne ñun les 19 ñun rek ñoo wax def élection d' ailleurs Boun Abdallah Dionne il l'a dit en tant que candidat retenu moom nee na 19 bi ñoo wax dem kooku xalaatam la xalaatu également ñi ngi xam ni ils sont retenus mais malheureusement ñëwuñu kon ñoom ils ont manqué de courage c'est de l'irresponsabilité de refuser l'appel d'un président de la République qu'est-ce qui s'est passé si kenn si ñoom nekkoon président de gis nga Al Amin le président de la République il est le seul à pouvoir convoquer dama ne n'importe quel citoyen où il se trouve. aussi am na droit ñàkk a répondre l'appel du président Macky Sall. d'accord c'est là c'est là le drame. pourquoi. justement moom la ñu fal. c'est la constitution moo ko teg ci kaw. gis nga euh, waxuma sax. Euh, mu soxla rek pour pour sa avis say compétence sax bu ko soxlaa vous êtes vous êtes ingénieur fële ca NASA man Ansoumana président de ma soxla la bu ma la wooyee dama war a wuy si nga liggéeyal ma nga bàyyi États-Unis nga bàyyi sax say poste de responsabilité donc dafay jaadu tey jii gis nga le président de mën na woo tey et là je suis formel tey seul le président de moo am tey pouvoir mu ne dama bëgg képp kuy kilifa diine ak kilifa aada nga ñëw fekk ma au au palais de la République te ñooñu dañ ñooñu dañ am devoir donc wuy si ka lan moo tax Cheikh Amadou Bamba gouverneur convoqué ko mu dem wuy ji ka d'accord loolu histoire la mais lu am solo la ngay wax nii mais xam nga temps bi dafa xaw xat dëgg la on revient sur le dialogue parce que mm-hmm. dialogue bi dafa am leneen loo xamante ne génn ci lu am solo très rapidement en sumaanam la question sur la loi d'amnistie indi na coow est-ce que jàpp nga ne on doit amnistier ou bien on doit justement valider et justement li nga xam moom mooy cette loi d'amnistie. loolu bokkul ci bokkutul si dialogue bi bokk ci woon bokk ci c'est une information du président de la République en tant que njiitu réew. yoon may ko loolu mu amnistier moom c'est sa décision. est-ce que vous êtes d'accord sur cette loi d'amnistie. loolu c'est selon. parce que man xaw ma lan la moo. on veut savoir l'avis de Ansoumana Dione sur cette loi d'amnistie. waaw xam nga man sama avis duma ko mës a nëbb. oui ne nee naa la sànq lu ma xamul du ma ci wax. on vous connaît lu ma leer. oui danaa ko wax. Hmm. mais bu fekkee ne am na euh, euh, fait parce ay fait la. oui yan fait la ñuy amnistier. oui je serai contre bépp amnistie boo xam te ni ñaawteef ci fi amoon au mois. Euh, de mars. 2021 en ñu rey ay nit. oui ñu taal ay bis oui balaa ñuy amnistie yooyu lay mbir. dañuy àtte ba mu leer d'abord. est que jàpp nga ne loolu du indi coow coow loo xamante ne mën na indi féewaloo ba lu ci mel ni xeexoo am ci biir diggante askan wi est-ce que vous pensez pas que cela mën na indi benn ñaanuma ko yàlla mais xeetu guerre civile. à mon avis le président de la République euh, devrait pouvoir s'en ouvrir à la société sénégalaise via un référendum par exemple ñu laaj nit ñi seen xalaat est-ce que nangu nañ wala nanguwuñu mais comme le président de moom la yàlla may muy doxal moom bu jàppee ne lii la ko yoon may parce que yoon ma ko may mu doxal loolu dañ ko koy nangul su boobaa. d'accord on verra on verra la suite en Soumana Dione mais fi ñu jeexalee mooy la situation des malades mentaux au Sénégal vous êtes un acteur principal ci ñi nga xamante ñoom ñooy xeex pour justement mën leen a jàppale. Mm-hmm. fan la xeex bi toll am na xaalis bu leen jiite réewu Sénégal Macky Sall diggoon est-ce que finalement jot nga ci enveloppe bi wala. jot naa si te ci laay nekk di liggéey depuis booba à Kaolack au niveau du centre il y a fi may wax ak yow nii une trentaine de personnes yuy liggéey pour les MAP Manto il y a plus d'une vingtaine de MAP Manto qui sont pris en charge au niveau du centre y en qui yoon déjà recouvré leur santé mentale et qui rentré rentrés auprès de leur famille donc tey pour ce qui est des malades mentaux errants man dama ci sant yàlla am na ak acquis do donte ne am na yenn mbir yoo xam ne en en tout des na fi. d'accord mais l'essentiel mooy suñ combat c'était de prendre en charge ces malades mentaux errants maintenant c'est fait le Sénégal enfin pour la première fois avec le président Macky Sall prend ces malades mentaux errants à travers notre santé Kaolack pour les maps mentaux erreurs. la Sénégal en fait aussi justement ci xeex bi nga xamante ne Ansoumana Dione mu ngi koy def li ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, maanaam am yenn feebaru xel ci li nga xamante moom mooy jamono ji fii réewu Sénégal am nañu ku leen soutenir et ça c' euh, ne c' est ñu koy daal di saluer le temps euh, comme ni ma ko waxee moo xaw la bari lool mais je pense que l' essentiel a été dit votre dernier mot. di la sant di la gërëm Al Amine Ndaw nga bu presse sénégalaise di tiitaroo dama lay ñaan yàlla yàlla def la mag. macha allah Leral TV euh, yàlla gën ko yëkkati bi ñuy commencé c'était devant moi. Hmm. tey bu ñu demee ba mu demee nii dañ koy ñaanal yàlla mu gën a dëgër. Euh, di wax nag askan wi nañu ànd ak suñu xel njiitu réew du nit moo koy jël hmm. déedéet yàlla moo koy joxe yàlla mooy xool ku ko neex mu jiital man bu doon lu ñuy xëccoo la bu luy jël la sonn ma ci te moo tax ba fii bi wax ak nii sonn ma ci donte nag dama jàpp ne suñu borom daf ma waajal man Ansoumana Dione. et que yow yaay wutu Macky Sall man maay wutu président Macky Sall vu le programme que je détiens. oui bâtir le citoyen. d' accord programme boobu xam naa dinañ amaat beneen émission boo xamante dinañ ko ci yaatal loolu nekk loo xamante ne lu am solo la ça a été un plaisir aujourd'hui ñu dalal ko moom Ansoumana Dione mbokk yi 12 minutes chrono ëllëg ak jàmm.